man la mam Anta Mbàkke dëkk Daaru Salaam doomu dëkk bi la ndax surtout mam Cheikh Anta borom gaawaan la kon ñun ñoo bokk maam léegi nag euh, mu nekk nag nit koo xam ne nii dafa dem jàngi bi mu jàngee ba ñëw indaale ay diplôme am bi mu indee ay diplôme nag dafa ni sama dëkk maam bii lu may def fi laa koy def mu ñëw ci dëkk bi li muy def lépp nag mu ànd ak ay bokkam ay bokkam la ko àndal nekk une femme boo xam ni femme bu dynamique la bu jàmbaare bu am jom bu am fulla ci li muy def te li muy def lépp tamit nag euh, ginnaaw loolu ci ay bokkam ay mbokkam la ci jiital nekk femme actrice de développement créer ay entreprise di ci jàppale jigéen ñi. waaw soxna Astou nag euh, mu ngi tàmbalee ci comme li ma leen waxoon ne day dimbale jigéen ñi. mi ngi tàmbalee ci mutuelle boo xam ne dafay financer jigéen ñi pour ñuy yëngatu comme ni ngeen ko xamee rek jigéenu Touba ak li ko wër nin amee jom ak fulla ak di liggéey ci loolu rek lan xam te ci la ñuy yëngu ci la soxna Astu ñëwee nag daal di dajale jigéen ñëpp jàppale leen di leen financer ñuy liggéey ginnaaw loolu tamit mu dolli ci création entreprise boo xam ne nii day transformation céréalière la léegi di yëngatu ci wàllu dugub meeg mboq meek yooyu yëpp ak gàncax gi léegi lim ciy defar jigéen ñi tamit comme li ñuy wax rek ñit eh, au lieu nga koy may jën da nga koy jàngal ni ñuy nappe moom tamit noonu la doxaleek jigéenu waa tuubaa ak li ko wër da leen di woo former leen su leen forme ba pare ñoom tamit ñu indépendante di liggéeyal seen bopp di jëriñul seen bopp ci loolu daal action yooyu la soxna Astou di def lu ñit yëngatu tamit mu bari mu néew lam ci am ci dooleem yépp dana la fekk si dimbale la ko te loolu lépp ci ay bokkam tamit la ko jiital moo tax ma mën koo seede tey ndax euh, bu ma ko seetluwul woon ak jàngat ko duma ma toog fii di ko wax waaye seetlu naa ne lu muy def lépp ay bokkam la ci jiital ak jigéen ñi fu mu gis sax formation boo xam ne nii baax na ak dina jëriñ jigéen ñi dana ko wuti ca àll ba bu doon États-Unis sax dana ko fa jëlee indi ko man mii assisté naa ay formation yu bari yoo xam ni ay euh, ONG yi jóge États-Unis ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy dimbalee mu woo ci jigéen ñi jàppale leen ci formation yooyu yëpp te xam nga ni tamit loolu am na solo ndax loolu tamit dina dimbale jigéen ñi ku ci nekk nga mën a demal sa bopp.